merci beaucoup Mariam Soda Ndiaye. Mariam Soda Ndiaye merci beaucoup. merci beaucoup Mariam Soda Ndiaye. jërëjëf ci discours bi. yéen tamit sans doute yéen a ko teree tëddi kon dañuy woo ki nga xamante ne moom mooy Maimouna Bousso moom aussi mu def li nga xam ne moom mooy discours am. asalaamaaleykum asalaamaaleykum bala may wax dara damay xuloo damay xuloo parce que naan focus mais fan yi dafa ñoo xam ni maa ngi leen di gis te gis te leen gis te di may visibilité mooy pas de visibilité de l'adversaire pas de partage pas de collage pas am doole yéen a mën yéen a ëpp doole yéen a mën yéen ëpp doole kon nag delloo leen ko foofu mu nekkoon arrêté leen di partager yi am moo xam chaise yu feesul yi la moo xam tappaas yi la moo xam waxtu yi la moo xam whatsapp yi la bu leen partager dara yéen focus rek yéen focus leen rek waaye mbokk buur il faut ma nuyu leen jaajëfal leen jaajëfal leen félicité leen ndaxte nag yéen mbuur yéen a gën a nekk victime d'injustice ci Sénégal ndax yéen mbuur fii dëkki tefes la li gën a baax mbuur la am géej gaa ngi nii jëriñu leen dara tourisme baa ngi nii dangeen ngeen di gis nit ñi di ñëw di dem visa mënu leen koo am àll baa ngi nii tool yi dañ koy jël di ko joxe di ko jox ay multinational ñuy ñëw di ci bay yéen waa Mbour yéen a gën a jàmbaar ci xeex ndaxte nag 2021 fi la ñu fekk de ana jàmbaar yi tàcc leen seen a jógoon leen seen bopp waaye yéen yéen yéen jànkat yi yéen ñi nga xamante ne du ñu jël ay gaal yéen a dawul yéen a immigré wul yéen a bàyyiwul Sénégal yéen a taxaw xeex jaayante ko tey nag ñu bëri ñu ngi wax immigration clandestine gis nañ li fi am jamono yee passé ñu koy mastawu di jaale ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen ay doom waaye di wax na ñu bare ci ñoom ay financement moo leen yóbbu waaye du yéen ñii yéen kenn si yéen dawul kenn si yéen tàyyiwul da ngeen a taxaw affronté pour libérer ce pays tey nag lenn képp moo am dangeen am chance itam ndaxte da ngeen am un président de la république parce nag le président Bassirou Diomaye ci yéen la bokk génn ci département bi ma bëgg ngeen tàcc ko ma bëgg ngeen tàcc ko ma bëgg mu jógee wane na fa taxawaayam local yi passé dafa taxaw di xeex nga ay suufu jàmbur ñu nangu woon le président Bassirou Diomaye majorité bii ñuy wutal sunu tête de liste le président Ousmane Sonko pour moom la en réalité pour mu mën a doxal la pour mu mën a mottali la ndax li ngeen ko jox mars bi passé bu ngeen ko joxul majorité daanaka moom neen ñoo ñoo yem te loolu xanaa du ngeen ko def du ñu sacrifié wu duñ ko jël di ko perte donc on va donner la majorité à ce régime là pour que les gens puissent travailler fi may tëjee rek sa def mooy dafa am ñoo xamante ne nee nañu ñoom amuñu lu ñu def dañuy wëri vaar en en posant ces barres là dañu fàtte ni la donne a changé man je ne suis pas de Pastef bi le président de Pastef di def ses discours en 2018 en 2019 en 2020 en 2016 dama ni est-ce que le contexte était le même déedéet dafa bëggoon jël le pouvoir teg ko ci yoon teg ko ci démocratie taxaw bi waxee tey mu am période de résistance bu fi am ça a en cause beaucoup de choses waaye lenn la remettre en cause xam nga mooy lan mooy la volonté de servir le Sénégal le don de soi pour la patrie te dafa am loo xamante ne ñoom dañ koy bàkkoo dañuy ne dañuy faral di wax dama koy dégg ci ñoom ñu ne dañoo waxoon ñu ne sunu tête de dafa waxoon jarul kenn warul jox majorité ki nga xamante ne moom moo yor pouvoir parce que ku ko jox dañu jox majorité opposition koo kooku bi muy wax loolu moom la tedd de liste bi parce que dafa bëggoon ñu bañ a jox majorité président Macky Sall pour mu dal ci kaw Sénégal loolu moo taxoon mu wax ko parce que boobu président Macky Sall mu ngi dal ci suñu kaw wante tey ñoom dañu ne ku leen ñu jox majorité pour ñun ñu liggéey waxuñu pour dal di xam nga ñoom lu ñu bëgg nee nañu bëgguñu avion yi naaw bëgguñu oto yi daw dañu bëgg Sénégal kàkk kerek taxaw looloo tax ñu ne boo leen di jox majorité loolu kan moo koy nangu kenn du ko nangu benn sénégalais du ko nangu kon nag c'est pas pareil donner la majorité te xam naa ni dina am mais nag on veut la manière on veut la quantité et on veut la qualité merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup Maymouna waa zone bi sànq damaa yàq seen kàddu daa am lu ngeen doon wax la ma ci dégg li ngeen waxoon du benn ngeen ne moo leen teree. Ousmane ñi nee nañ yaa leen teree mbëkki yaa leen teree jël géej gi répété leen ko ma dégg. Les jeunes sont en de dire ici amour que c'est à partir de Ousmane Sonko qu'ils croient au Sénégal et qu'il renonce à l'immigration clandestine pour que les gens le chassent, pour que le monde le sache. Ceux qui disent que les jeunes sont en train de prendre la mer parce qu'ils n'ont plus d'espoir, c'est faux. Cette jeunesse croit encore à ce projet-là. Cette jeunesse dit qu'il croit à cet homme-là. Cette jeunesse dit qu'il croit à ce régime-là. Et cette jeunesse dit qu'il ne va plus prendre la mer. Cette jeunesse renonce à l'immigration clandestine. kon dañuy jël Tata Aïda Mbodj moom ñu jox ko kàddu gi bu paree nag ñu jox kilifa gi mu tëj. Eh, introduire nga ma ci sama sujet ndokk bi ngeen ma tontoo te waxaguma leen dara dama gëm sa bopp yomb na ci wax ko ci réew émigration clandestine jeex na espoiru réew maa ngi fii mën na leen ko def na ay politique yoo xam ne war na leen ko monsieur le président de Pastef dama ni élection yi ci département législative ci département yi lañ koy préparé département yi gañal seeni say alliés ñëw nañu ñëw nañu ànd ak waa département bi Babacar Pascal Dione mu ngi fi Mame Khaly Sarr mu ngi fi Bouga Diouf mu ngi fi Aliou Diouf dafa tukki mais ay militant ma ngi fi Modou Diarra Diouf mu ngi fi la baaba fay mu ngi fi ñooñu ñëpp ñu ngi takku ànd ak les responsables de département pour jox la une majorité écrasante à Mbour Mbour dafa symbolique pour Ousmane Sonko Mbour dafa jote dangeen ko taxawu Mbour dañ ko dafi ñëw di def nemmeeku tour ñu attaqué ko jël ay nitam tëj leen fii ci prison Mbour ngeen taxawu guddeeg bëccëg yéen ngi tribunal yéen xeex xeex bi kon mbuur bu ngeen seetee li Ousmane Sonko représenté ci projet bi ak li ngeen ci def ak seen colère gi ngeen amoon bu dul dara sax géej gi nga xam ne amu lu dul moom ba mu yegsee toog la daal di réviser licence yi licence de pêche yi pour permettre leen effectivement yéen waa géej gi dootu leen dem fenn ngeen bénéficier ci seen licence de pêche jën yi des fi su ko defee ngeen am lu ngeen jariñoo mbëkk jeex na mbëkk jeex na Ousmane ñëw na. ma m'adresse singulièrement à cette jeunesse singulièrement à cette jeunesse prise en étau. merci beaucoup. Didier loolu nga teg léegi am na solo mais maa ngi si ñëw parce que loolu mooy li nga xamante ne moom la kilifa gi war a tijjee mais président daa am lu am solo. dafa am des détenus yoo xam ne dañoo nekkoon ci kaso bi et à partir du prison ou bien pardon de la prison yow nga nekkaale ci prison bi ñoom ci la ñu bind livre livre boobu ñoom waa Mbour ñoo ko bind fii ci kaso bi nee nañu dinañ ko jël jox la ko bu dee pare na léegi dinañ la ko jox sinon dinañ la fekk ba fa nga ne indil la ko. pour wan na ne ñoom également bi ñu nekkee ci kaso bi seen xel mësu la dañ ci yow mais mbokk yi dafa am lenn loo xamante ne lu am solo la merci beaucoup livre baa ngi noonu ki nga xamante ne mooy représentant détenu yi tam nekk ci liste yi mën na ñëw jox ko ki nga xamante ne mooy le président de PASTEF Ousmane Sonko déedéet du livre bi de non du bii livre bi président Ousmane Sonko moo ko bind du bii bokk ak bii bu ngeen bokk ak boobu kon mbokk yi bu ngeen ko daje téye rek ñu jël ko jox ko ki nga xamante ne moom mooy kilifa gi li ma leen doon wax tout te moom il y tient li coow li di bari bari li tàcc yi di bari bari am na loo xamante ne il a tenu à ce que ñun ñëpp ñu respecté ko dafa bëgg tey bu jógee mbuur yéen képp kenn ci yéen bu duggee këram mën a wax waajuram bu jigéen boo xamante ne doon na xalaat mu mbëkki mën a convaincre waajuram lan moo tax waratul a mbëkki parce que Sénégal dafa war a développé wu parce que Mbuur bokk na ci dëkk yi nga xamante ne ponk la ci suñu koom te dañoo war a am économie boo xamante ne ci ponk yooyu daf ci war a jógee ci kaw loolu xam ngeen ne Mbuur dëkku nappkat la xam ngeen ne Mbuur dëkku tourisme la xam ngeen ne département de Mbuur dëkku bay la loolu yëpp nag mbir la yoo xamante ne tënk nañ ko ci référentiel bi mais lu tax ñu leen di wax référentiel ak projet alors que ñoo ngi jëm ci élection législative parce que lii tax ñu mën koo doxal ay loi la ay norme la ay règlement la yoo xamante ne dañ ko war a voter assemblée nationale ngir mu mën a wàcc ci base bi ba ñoom li ñu bëgg a teg yéen ma ngeen koo mën koo dégg jox ko askan wi Sénégal mën a jëm ca kanam ba tax na yéen ci seen bopp faw ngeen déglu ko loolu je tiens encore à le dire ni ñëpp déglu ñu déglu li muy wax parce que li ñu bëgg mooy bu jeexee mag ndaw góor jigéen ku ci nekk foo nga mën ne kat référentiel bi nga xamante ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko présenté nañ ko Sénégalais yi référentiel bi mbuur rôle bi mu ci war a joué lii la dañ ko war a xam xale yi jàng ko xam ko doxee ko di ko xalaat.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 loxo yi nañ door si tàkk ba seet tout le monde subhanallah te ku ma leen de Yes. Gassama Come on! 부탁이니 밝은 걸로 시다 우리 앞을 따라만 보라봐 뜨거운 영을 시다 뜨거 안 뜨거 안 뜨거 안 뜨거